tabaski su daa jege président de la république jay jël ay dogal yu rëy bokk na ci matuwaay ak dogal yi mu jël mooy nañu yombalal ñi nga xam ne ñoo jëndi xar ci yoon yi ñuy jaar ci frontières yi ci point de vente yi ñu yombalal leen lépp pour ñu nekk dans des conditions optimales pour que consommateurs yi suñu ñëwee ci point de vente yi ñu mën fa fekk ay xar en quantité suffisante mais aussi en qualité loolu sant yàlla président de la République moo jël dogal boobu dindi taxi ci frontière bi wax dëgg fi yàlla suñu tournée yi nga xam ne def nañ ko ci frontière yi mesures yooyu ñu ngi koy appliquer bu baax a baax moo tax aussi may profité ba taa may sori te di ko fàtte di sant bu baax a baax a baax suñuy service de sécurité muy gendarmerie muy police lu tax loolu kenn ku ne xam na ñu ci bari ci ñun su timis xase ba weesu walla minuit commencé naa nelaw di xaran ba yandoor loolu nag su ma nee ne dafa am ñoo xam ne nelawuñu dafa am ñoo xam ne ñoo ngi ci mbedd yi dafa am ñoo xam ne ñoo ngi ci yoon bi di ñu surveiller di ñu aar di ñu tàttagal kon ñooñu timit dafa am lu ñu yelloo li ñu yelloo mooy fu ñu tollu ñu xam ñooy ñan ñu xam ne ni ñii ñun ñoo leen fi tax a nekk ñu xam ne ñii ci suñu intérêt la ñu nekk kon ñu leen di jëfal kenn ku ne xam na tabaski nekkatul rek activité économique ak activité religieuse waaye activité économique la activité sociale la su ñu waxee activité sociale nag dañooy ñaan ñay jaay naam bu ñu bazarde la ñuy jaay waaye nañu bàyyi xel tamit ñi ñu koy jaay am na ci ñu lott lool te nag du seen ak yaafuus yàlla la neex. kon ñu jàppalante ñu xam ne réew mi kenn ci ñun ak koo mën di doon du sag njàmbaar moo tax nga toog fa nga toog waaye du sag yaafus moo tax nga toog ci suuf yàlla lay neex defee nu ko neexee kon nañu fàttali loolu ci li mu def ci loo xam ne wàlluk tabaski bi la yombalal consommateur sénégal yi parce que kenn ku ne xam na at bi atu ren bi covid 19 bi dafa lottal doomu aadama yi lool affaire yi xaw a métti moo tax mu jël luy tolloog 3 milliards de francs mu jox ñu ko mu ne nañu accompagner éleveurs yi bi mu paree loolu ne ñu saag bi ngeen di jëndee à Dakar à 8500 francs maa ngi leen di jox ndigal ngeen jaayab à 2200 francs lu tax parce que jamono ni mel il faut ñu jàppale wax dëgg fa yàlla wax mu ne doy na sëkk waaye nag yaatu na ci réew mi ñu sant ci yàlla sant ko ci dañu sant yàlla parce nag li ñu fekk fii tey ci biir departement de Mbacké rawatina ci ñaari dara li ñu visité lu dal la parce que ci xayma daaw mën naa ne information yi ma jot ci inspecteur à J moins onze tabaski mu des fukk benn fan ñu ngi tolloon ci quarante quatre mille têtes tey ci tey ci liñ ma wax ñu ngi toll ci cent cinq mille têtes soo defee différence bi presque c'est le double la ñu am à la même période kon loolu su tendance yi continuer mu mel noonu ba mu fin am nañu njort ne ak yaqin que ne xar dina am pour ñëpp yàlla na ko yàlla def mu nekk ñu muurloo